Samb ñaar fukki at ak juróom mi ngi ci ay service di ko dawal moom Fulbert Samb nag leer na ma ne am na mbetteel ne li koy faat ci intérieur la jógee bu fekkente ni nag gànnaay bi nga xam ne moom la doon xeexee ngir lu jëm ci wàllu patrie dafa mujjee wëlbatiku dalaat ci kawam kon nag yoon dafa war a def liggéeyam Babacar Diouf ñu gën koo xamee ci Abakara ma ngay joxoñ baaraama tuuma nekkoon fi chef suprême des armées ak fi nekkoon ancien Fall ñoom ñooñee nag jàpp na ne seen loxo jugul ci faatu ñaari takk der yi ci biir yëglekaay bi nag ma ngay leeral ne ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre atum 2022 néew boobee nga xam ne rek moom la ñu suul am na yàqin bu baax ne du néewub Fulbert Samb beneenub néew la ñu leen jébbal ñoom ña ngay xam ne ni Sénégal ci jamono ji ko Macky Sall di jiite nag dundoon nañu ay jafe-jafe yu méttee métti ndax Macky Sall da doon def lu ko neex di buur di bummi ci kaw askanu Sénégal ak di faat seen bakkan jamono ji nag ñoom ña ngay sàkku ci kilifa yu Sénégal yu yeesi nag arrêt international jëmale ko ci kaw Macky Sall 24 heures yëglekaay moom itam xëyee ci faatuk soldaar bii di Fulbert Sambou ak Didier Badji yéenekaay bi ne ay moroomi way takk derem nag ña ngay sàkku yoon def liggéeyam Babacar Diouf di xam le ni xol bu naqari la am nag ginnaaw ba mu yëgee faatuk classam boobu nga xam ne rek 98 la ñu daloon di ànd waaye nag jàpp na ne dañoo war a leeral bi le dossier ci 24 heures ma ngay xam le ni nag am nañu yaakaar ne kilifa yu yees yi nag daañu def seen kéem kàttan ba Fulbert Sambou ak Didier Badji nag ñu xam ana lan moo leen faat loolee nag mooy suñu xeex jamono ji te yaakaar naa nag bu fekkente ne ab soldaar dañu ko faat li nga xam ne rek moo jekk te jaadu mooy ji nga xam ne rek ñoom ñoo di ay chef am ñoo war a amal ay recherche yoo xam ne rek dañu ko war amal jaarale ko ci waa direction de l'information et des relations di waa DIRPA waaye ba nag si nag dëgg gi moom mënuñu koo feeñal Vox Populi àddu jëmale ba tey nag ci ñaari takk der yooyu nga xam ne rek ñu ngi faatu woon ci weeru novembre atum 2022 yéene kaay bi ne fi mu toll nii nag way takk der yi jug nañu taxaw temm li ñu bëgg rek mooy yoon daal di def liggéeyam ci anam bi bi nga xam ne rek noonee la ñu faatoo ñoom ñaari way takk der yi ña ngay joxoñ baaraamu tuuma président Macky Sall mi fi nekkoon ak ay collaborateur am ña ngay xam ne ne saa su nekk discours bi ñuy teg ci seen loxo rek daanaka xel mënu koo nangu te lu jëm ci loi amnistie bi nga xam ne rek moom lañ fi taxawal dañu ko war a suspendre fi mu toll nii nag lu ñu bëgg mooy ñu daal di ubbi ab l'enquête lu soxal sax lu loi amnistie boobee nag kii di Ababacar Mboup ma ngay sàkk ñu daal di koy abrogé ginnaaw bi mu gisee ne nag ay mbir yu doy waar dafa am ci biir réew Sénégal ci atum 2021 jàpp 2024 bu ñu sukkandikoo ci ancien coordonnateur bu ànd sàmm jikko yi nag loi amnistie boobee ñu fi taxawal nag ngir ay crime yoo xam ne rek def nañ ko fii ci réew Sénégal lépp politique rek moo ci lalu addu jëmale ci Sud Quotidien mi nga xam ne rek dellu siwaat na ci li nga xam ne moo soxal coow li am ci desu ki nga xam ne rek moo di président Diomaye Faye ci biir conseil supérieur de la magistrature yéenekaay bi xëy dellu si ci verdict bi nga xam ne rek ma ngay tukkee ci juge yeeg waa société civile Aline Ndao ak Souleymane Teliko nag ñoom dañoo voté ngir ñu génnee njiitu réew mi ci biir conseil supérieur magistrature Demba Kandji ak Badio Camara nag ñoom bu ñu sañoon nag moom Bassirou Diomaye fay dafay wéy di des ci biir kuréel googu Alioune Tine nag moom di xelal Diomaye Faye nag ngir mu daal di dalal xelam te def tànneef gi nga xam ne rek moom moo ëpp njariñ ci jamono joojee nga xam ne rek ña ngay wax tànneefu Diomaye fay ci biir conseil supérieur de la magistrature Le Soleil yëglekaay xëyee moom ñaareelu journée nationale bi nga xam ne rek dafa jëm ci wàllu nettoiement tey jii nag premier ministre bu Sénégal Ousmane Sonko ñu ngi koy xaar lu toll ci ñeenti téeméer ci ay agent matériel yoo xam ne rek mobiliser nañ ko fa le quotidien yëglekaay xëyee tey ji moom itam lu jëm ci wàllum payum impôt yi nag ci biir entreprise de presse yi yéenekaay bi ne président Bassirou Diomaye Faye jamono ji nag ma ngay tëral ay règlement bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom nag lu jëm ci di koy doxal démb la doon dalal waa convention des jeunes reporters du Sénégal yéenekaay bi ne lu jëm ci mbirum presse ak fiscalité Diomaye mi ngi ci tànk Ousmane Sonko Vox Populi nag ne président Bassirou Diomaye Faye kay moom amal na waxtaan wu yaatoo yaatu ak ñii di waa convention des jeunes reporters yu Sénégal xamal na leen nag lu waral ñuy topp ñii di patron de presse yi jëm ci wàllu dette fiscale moom président Diomaye Faye nag li mu gis rek mooy bu fekkente ni nag bëgg nañu ay saafara nañu ko bind bu ko defee nag ñu xamal ko ana yoon yoon la ñu war a jaar ngir solution mën a am lu jëm ci wàllu dette fiscale boobee nag soxal entreprise de presse yi moom njiitu réew mi ma ngay xam ne ne nag bu desee ci moom rek nag lépp dana soppeeku ndax li woon woon na benn bor dootu leen ko effacer moom njiitu réew mi démb la doon dalal ab délégation

doon nemmeeku ci këru tasukaayu xibaar yi nag jeex na ni ki tey jii enquête yëglekaay fell ko ne jomaay kay jamono ji nag taxaw na temm ngir jeexal ko waaye ma ngay xam ne ni nag noppi ne itam nag ngir jàppale taskatu xibaar yi ci kaw rek bu ñu nekkee ay presse yu libre te responsable Walf Quotidien moom xëyee ni ki tey jii nag ci renouvellement yi soxal wàllum CDD yi yéenekaay bi ne ci parapublic yi nag rang bi nga xam ne moo soxal wàllu chômage bi nag ma gën di yokk saay su nekk addu jëmale ci wàllu tàggat yaram ak euro 2024 ak quart de finale nga xam ne moom lañ amal yéenekaay bi ne Espagne moom noggatu na Allemagne ba daal di jàll ci demi-finale Rewmi Sport feelu ko ne Bley kay jamono ji nag dem nañu ca demi-finale ginnaaw tiro bii boo xam ne rek moom lañ doon amal ci seen digganteeg Allemagne jeexale yëglekaay ak L'As Quotidien ma ngay xam le ne fii ci réew Sénégal nemmeeku nañ fii lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukki yoo xam ne rek ci wàllu sida la te loolee nag ñu ngi ko nemmeekoo foofee ca Bambey mbokk yi li yëg noonu fës yëglekaay jàmm ak jàmm Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal